ay waay féexal sab xol ah original neexal pot te original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw ayca jërë ngeen jëf mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi nuyu nañ leen bu baax a baax di leen jaare ñoo ngi fi Malika seet si bébé Saloum mu bëri démb digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Jacob Balde yàlla dogal Jacob Balde daan ko ñu ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci défaite bi lan moo waral defet bi waaw ginnaaw bu ko yàlla dogalee waaye nag lan mooy sabab yi loolu bëgg nañ Bébé Saloum waxtaan ci ak ñun pare na physiquement wala parewul Bébé Saloum est-ce que fii mooy place am ci làmb moom ci boppam est-ce que fii la doon xaar boppam ci làmb loolu yëpp bëgg nañ ci waxtaan ak moom waxtaan ak moom tamit ci li nga xamante ne moom mooy avenir am Bébé maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaare bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi borom Saloum. waa Lamine maa ngi lay fay ginnaaw bu ma waxee onge billah bismillah inna waliyu yàlla onge billah bismillah inna waliyu yàlla onge billah bismillah inna waliyu yàlla jërëjëf Serigne Touba Jaral ak Maam Cheikh Ibra Fall Lamp Serigne Mountakha Al Bassir merci de diine yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal sama sang ba sama wasila Serigne Abdoul Karim Mbacke naara moom aw mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyu monde entier ñi tawat ne ci hôpitaux yi maa ngi ñaan sama borom fëgg seen bopp ñu dellu seen yitte. ñi caabi féete ginnaaw maa ngi ñaan sa borom yolomal ba ñu dellu ci seen activité di nuy Sénégal yëpp képp ku ci am njàqare yàlla na ko sa borom wàññi maa ngi bëggee ñëpp di sant ñëpp ah di nuyu suma mag Xaadim Gueye mm-hmm. xam nga di ko nuy bu baax a baax a baax a baax di nuyu Xaadim mm-hmm. Gueye bu baax a baax a baax di nuyu Adja Soxna borom Atlanta di nuyu ngañ ma dégéen di nuyu Modou Ndiaye borom Ebisa di nuyu nag suma papa bopp Serigne Mor njaay noo fatigable borom Pikine waaw di gërëm di nuyu suma gars yi ku ci mel ni Mama Koura Sora Ilimane Addiya ñaari yaar numéro 2 euh, fàll Bour Géwél bàyyi Ndaw suma mag ku ci nekk rek Mout njaay suma papay doom suma suma turandoo suma papay turandoo maa ngi koy bëggee dafay sonn ci man tuddee ma doom doyoon na waaye yamu ci da ko boole lu ma nekk ma nga ca ak kulati suma doomu nday daaw dañaa képp kuy sonn ci bébé Saloum rek maa ngi lay bëggee di la sant di la gërëm di nuyu sumay soxna ku ci mel ni Jaba Yaay Buur borom toogaay bu jekk bi mu toogee ba tey jógul ak soo dema ma mareem sama naaru darman ko bi yaayu sëñ Fallou waaw noonu laa la nuyoo. kon bébé am nga fi dee. waaw. daa yow daa mel da nga dem sax da nga àgg au sommet. man xanaa xamoo ku toog di ma xool sax yaay nga am fit ndax man yàlla rek laa gëm. kon yow da nga am ñeent. ci kattan yàlla bëgg naa ko. laa ilaaha illallaah. góor fit. waaw bébé góor fit. waaw. waaw waaw. arrondir rek. yàlla fi ne. yàlla rek fi nekk. mais bébé danga jóge ci combat démb muy sa diggante ak Jacob. Mhm. bee passé sa diggante ak Serigne Ndiaye. Mhm. lan mooy problème mu bébé bébé est-ce que li ko war ci komba yi léegi mi ngi koy def ba ba parce que dafa am ñu ne dañu gëj a gis bébé bi ñu daan gis bu summeekoo nga ni mbër maa ngi nele bu dongalee nga ni mbër maa ngi nele buy lagg ci biir géew ba ci biir géew njàmbaar gi mu wane xeex bi fulla ji fayda ji. bébé Saloum boobu gars yi ne ne nañ koo gis lan mooy problème mu bébé Saloum dañu bëgg a xam carrément. lan mooy problème bi nga bañ nga bañ ko nëbb bébé daa ne tul wala bébé Lamine daf ko jaralatul. non Lamine xam nga bëgg njëg lay jar maa ngi lay kontaane ci laaj bi ma laaj aussi waaye delloowaat lépp yàlla rek parce que gis nga boo bëggee luy jar fukk te yoroo ñaar dërëm. Mhm. ci waxaale sonal borom ngay dëkk. boo bëggee luy jar fukki dërëm. te yow mi koy waxaale yoroo lu dul ñaar dërëm. Hmm. ci dëkkee waxaale rek ngay dëkk. dëgg la waaye bis dina jot boo muñee yàlla jox la fukk nga jënd luy jar fukk. Hmm. waaw. nga wax de olof yu leer naññ la mais am na ñu déggul olof bëggoon mu gën a leer wax bëgg hmm. luy jar fukk te fukk lan moo tax yoroo fukk yoroo fukk. coow fukk yi ma yaakaar ni ci saal yi lay jóge ci géej gi ci contact bi écrit bi. coobaree sama borom bi ngay ñëw fii da ngaa dox est que ay bébé waaye xam nga ni doxuma nag bébé. lii ngay def connexion bi nga jël da nga la ko may wala boo ko amuloon kenn du xam ni mën ngaa xarañ xara xëy nga ci xarala gi junj nag doy na borom xel wax dëgg ko moom damay jàmbaar mënu ma victimiser wu. loo bëgg a wax bébé. lu ma bëgg a wax mooy jàmbaar amul ku ñu dimbalee am. combat yi mujj kon bébé wéet na ci. même yu njëkkee njoom ak jàmbaar ma jàllale waaye bébé daa yàgg a wéet. Hmm. bébé mil na wéet daa yàgg a wéet. waaye nag ndokk bi ma bi ma wéeroo ci yàlla man lu ma ñàkk-ñàkk yàlla laa gëm lu ma am yàlla laa gëm lu yàlla def neex na ma dama doon doon daan ay doomi jàmbur ci wéetaay su may doomi jàmbur daanee ci wéetaay yi damay sant yàlla bébé keroog ba ngay daan garga mboose hmm. leer na ma ni daan nga yow quatre heures wala cinq heures du matin dem géej hmm. boo fa jógee di nga noppalu su tuuti dem saal hmm. ngoon di nga dem sa écurie parfois nga def ay séance de boxe ndax combat yu mujj yi nii bébé def na ko. si combat yu mujj combat bu bii passé barke alxuraan daj naa coono bu nekk boo xam ne daju koon sax ci combat ak Serigne Ndiaye yàlla rek lay jël seer feeñ na barke alxuraanu karim daj naa coono yu ma dajuloon sama combat ak Serigne Ndiaye. feeñ na waaye nag mm, li may wax rek dangay ngay dékk loxo mbaa nga dëpp sa gémmiñ ci wetu wàllu ci ki nga ko yaakaar bu yàlla kese ñoree ko dina la tax dina la taxaw te yàlla tax bu ko yàlla ñorut. wala tam deful te yàlla tax dangay ngay muñ rek ànd ak yàlla Lamine mënuma laa force ci tey nga filmer ma far force da neex rek ci sa coobare bopp nga filmer ma noonu la demee suñu jàppale dékk nañ loxo ñi ñu war a jàppale suñu jàppale dékk nañ leen loxo bu ñu jàppalewul dékk nañ leen loxo ñi ma yàlla jot a jox na xeebuma leen parce que ñi ngi jóg ak man di daanoog man te ku ci mel ni Xaadim Gueye xam nga ko soxnaam ak ngañ ma déggeen ak ñooñu ak sëñ moo Njaay sama papa ak sama gone yii wax dëgg yàlla ñoom la ma yàlla jox. ñoom kese ñoo lay jàppale. ñoom kese. kon bébé gars yi jàppale wuñ la ci su ma la waxee dëgg man awuma combat ku may may un million man su may dem Europe maa jëndal sama bopp bi sama combat maa koy waajal sama bopp man ñi ci jot a jàpp mu néew mu bari bu sem làmb ji desee trois jours wala semaine wala quatre jours wala cinq ci lañ la koy jox te loolu day fekk làmb wees mu nekk lu metti ma koy dund ñeneen ñi nag xamuñu ko et puis xamut lu. war. lu jot la xam jot la xam te lu jot mu def ko. am ñu fi seen carrière gënoon a metti sama carrière ndax maa ngi ci fukki ndam ak juróom-ñett neuf top cinq juróom-ñaari defet laa am damay sant yàlla ñi ma daan gënuma leen mais ñi ma daan it gënuma leen dama daan daan muy neex ma daanooy daf may neex daan bi dara naqariw ma ci lu dul jóg jaajuwaat xool li manqué waat ko dékk yàlla suñu borom loxo kese. combat yu mujj yi ndax bébé ko ndax xaalis. lam Lamine ndax yaa may fayal sama doom lu ñu jàng. ndax yaa may joxeel mbër mu ñàkk jom bi yaa ma koy daanal muy dépense ñu fay ma xaalis du ma ko jël ñi ma jege sax buñ ma ko teree su ma tourné xool leen dañuy rus parce que dañ leen di sarax ñuy warax mënuñoo génne sarax kon mënuñu maa yor donte yéene nañ ma ko kon bu bu combat ñëwee kenn ci ñoom du ko tere dañu ànd ak man ci yërmande sans borom puus ma rek xool dina jàllam dem. mais buñ la proposé adversaire ndax mënoo yow tamit. suba suba suba buñ ma suba suba suba buñ ma joxe yow jàll dama ko. kon yow amoo choix ci adversaire ci man ci sama biir njàmbaar gi ma démarré ba am ci ay jafe-jafe du ma ci jóge li fekk génn ma ci xaw ma dégg nga ma xaw ma déggoo ma du ma ku bëgg lu yomb di taat na ay Tapha Gueye 2 ay ñee non non barke alxuraan bëgguma ko ndax nag lu tardeel sama carrière bëgg lu méttee ko jël boo yoo xam ni tolloo ma ak ñoom manto bokk ma ak ñoom ma jël leen daanu ci ba tey ma ne mën naa ne jëlaat ci daanu ci ba tey ma ne mën naa ne jëlaat ci daanu ci ba tey ma ne mën naa ne jëlaat ci daanu ci kon ba tey dama ciy jël daan ci daanaat ci daanaat bu ma leen di bàyyi fee doog leen bàyyi fee man jàmbaar laa mënta ne bëgguma ko dégg yàlla rek a fi nekk waaw. ah mais ñi ci bëri simple bi moo xam naa di nga leen fi bàyyi moom parce que ñooñu dafa mel ñooñu. bébé déggoo li ma la wax. instant bi capacité yi daan ñooñu bébé nekkul ci loolu noonu wala wala wala loolu loolu nekk. mbëri yi def simple comme ñan. ay Franc. non Franc moom suñu revanche dina taxaw mais moment bi. boo ko Serigne Ndiaye de. non ñëpp la ñuy bëriwaat. Reug Reug. xam nga tey su ma bëggoon bàyyi làmb dama koy déclaré fii ni leen bàyyi naa. Ah. mu ngoon ma ni papa sëñ Mor mu naa ma ne ko daggal ma billet ma dem bàyyi naa làmb ndax tukki nag wax dëgg yàlla xam nga ne yomb na ma yow. si xam naa loolu moom. waaw léegi nag bu ñuy waqirloo yàlla ba pare di gëm ni dinañ am dara ba tey mënuñoo forcer yoon bi tamit aussi duñ mën a toog fii di victimiser wu dañ daan seekat la saa daanoo def naa li ma waroon def ki ma war a daan daf ma war a daan jour ba mën ma daan ma jeex na ndax ne ma doon daan jour ba dama leen a mën daan leen jeex na waxi ñeneen ñuy wax lijjantiwu ma leen waaye man ku ma àndal ci sama essence ngay daw ku toog ki tele xas ma sa yaay du ko def mbaa sa rakk du ko def su ma la defulul dara yow mi ku may xas defal naa ko sa yaay mbaa sa rakk te li may wax ne yàlla laay jël seere ndax man lu ma am te du ma ko bokk ak jaam yi yàlla moo ko rabbi sama waati may lu ma am yàlla naa ko bokk ak jaam yi ñii laa am ñooy samay or ñooy samay ngalam xeebu ma leen bu buñ doonoon ay Cheikh Amar mbaa ay mali Gakou wallaay azim ñu xam ni wuré bi mën naa ko trop waaw. naam ñuy toog ci taraxas la. ay nit. ay xeet ay yéen am na yenn xeetu nit yu ko def de. ay supporters wala ñoo xam moom du ma leen tudd sax di leen may. ay say supporters lañ. non non sama supporter kenn du ma xam ah, nañ ma samay supporters non xam nañ ma wax dëgg yàlla parce que nag euh, am cëgin dafa yombul na nekkoon moo doon cëgin ndax indi naa leen ndam lu nekk ak xeet bu nekk ak xeetu jël bu nekk su ma daanu suba damay dese naa yeneen daanu ci làmb ji ah su ma dese naa yeneen daan ci làmb ji. waaw yàlla dëgg la. làmb loolu rek la daan ak daanu la dese naa yeneen daanu yàlla na yéex yàlla na sore yontoo nag waaye dese naa yeneen daanu suma ma bàyyiwut waaye sama yeneen ndam ak sama kanam te am naa ngëm-ngëm bi gëm ne dina am. li lu war leen la rek dem dugguwaat suñu loxo liggéeyaat ñëwaat talalaat loxo suñu borom ndax mooy koy may rek. lan moo la manqué ci combat bi. antu mais doole amoon nga ko ci jóg. wallaay enzim barke alxuraan li ma yëg ci sama combat ak Jacob Balde ci doole ak ci préparation dama ñu la maag Serigne Ndiaye biñ ma tamee dëmm sax maanaam maanaam yëguma ko bu dee dëgg laa lay wax. biñ ma doon tamee dëmm ci maag Serigne Ndiaye ci ñëpp nangu ni damaa mën a bëree jàppale laa amul wala damaa waajut wala damaa amul doole ñu ko doon wax xam nañ ne daanaan laa man ku ma daan it xam ni daanaan nga daan waaye yenn yi ñenn ñi am buñ ko divisé woon par dix ma téye benn bi ñu xam ni jàmbaar piir laa te jàmbaar sax danga amul ko ñu dimbalee am fii ku fi dégg koo fi dégg ñu koy coow rek dañ ko entouré dimbale ko ci lu bëri lu ko waroon jafe ba tax mu amul ko fit de mémoire wala parce que Lamine nag dafa neexut ko nga dem entraîné ji ba ñëw jàkkaarloog seen njaboot gu ndaw gi war leen teral te yoroo ko dafa metti weer dee seen njàng taxaw nga war leen a fayal dafa metti courant jot ndox jot lépp jot te amoo ku naan la weer wi teel ci lii amoo oto yi daw di la verser amoo lenn kooku jàmbaar la quoi wax dëgg yàlla euh, ku gëm yàlla laa tamit ku nangu ndogalu sax borom bi laa ndax nag yàlla xarit ba lay musibaal bu ko naree dara jaal mbaa donte muy ëllëg ku ñuy baal te bala laa wóolu ba dénk la mbiram ya faaw nga yenu yen ba aw ca tànki mbër ya lam doon yan xutbe ak lam daari te ñun àttanu ko ñu nuñ ko ñun ay nattu dong la koy xaymaa mooy yii di jàll nii suñ kanam man awma ay noon ay noo comprendre laa am parce sooy wax da ngay jël yàlla seere mais boo jëlul yàlla seere rek mooy fàtte nga ne yàlla la bind bind ma te yàlla rek di sama jëb yi incha allah laata ma ne kenn àjjee dinaa si jot mhm. mbaam mu yéex te sëf sama yaay ja ca àjjana doon na ma wax ni ma moo ma gënal fuuf mbaam mu gaaw te du dara la sëf. Mhm. te yàlla un la. dara. mbaam mu yéex te sëful ma ko gënal. mbaam mu gaaw. te dara la sëf. mbaam muy gën a leer man xam nga sax moom ab kooku laa man wax dina dinaa ko xam. waaw mbaam mu yéex te seetaan laa bëgg. mbaam sëf moo ma gënal mbaam mu gaaw te dara la sëf ndax nit a ngi yóotu subaam wan ginnaaw ki ko moom dontaan ne it mi ngi jéem a mu subaam tege ni moo gën ci moom nit dina yor dara mu doon xal yi koy lakk waaye man lépp lu ma jot ci sama àdduna yàlla na doon ndox mu sedd guy ma mun ko bokk ak jaam ñu xewlu. bébé gi taalif de bébé yow yow yow yi ngay wax foo ko jànge waxande laa wu wax rek ku ma ubbi may làmmiñam nga ne. waxande laa wu dafi wax rek ku ma ubbi may làmmiñam te amaana damay toog sax léeg wax loo xam ni bu ma ko seetaanatee laay doog xam ne ndax man maa wax lii kon man yàlla la rek. affaire daal day ñëw naturellement. waaw naturellement bu la lamp tàkkee li may wax loo sax man xaw ma ko léeg nga gis ñu ne bu toogee wax nga ne nangam musuma wax loo insolent. musuma musuma dépassé nit. Hmm. kon li may wax du man. maanaam da ngay yëg di wax. waaw damay di wax dama koy yëg di ko wax te bu ko waxee yëgal ko ñu bëgg ñi bëgg yëg-yëg noonu. parce que wax jii lu tax ko romb déglu ko du man quoi su ma ci dugalee sama bopp rek yàlla rocc loolu yàlla suñu borom la li ma ne Balla Gaye démb ceer euh, laaj ma ma ne ko Balla Gaye làmb faraluma ko du sama idole waaye mooy làmb dekkilaat na làmb làmb riiraat na ci àdduna fi mu nii ndax liñ ko def li mu def démb kenn xaaru ko fi woon du yow du man du keneen ndax bu dee ci pare gi ñuy wax dafaa ko gën a pare mais làmb nekkut loolu lu ko ñu lu xañ Tapha démb li ma xañ yàlla ànd ak moom. loolu kese doy na lay ah, loolu dina lay man de sama lay du ma ci génne yàlla sama borom parce que nag xëy lii may wax bu antoo yàlla la léegi nag ma ne noo lii laa waroon def wala Lamine moo ma jàppalewul noo kon damay caalit te lii am am na ba pare nga wax ci lu ñaaw am na nga wax ci lu rafet am na kon teg ci wax lu rafet rafet ci Tapha mun ta wax ba daanuwut. démb fukki ndama dugg ñaar fukki ndama dugg juróom-ñett yi ñoo juróom génn ak benn sans verdict. nii ah. nga ni Balla mooy làmb. wallaay démb làmb riiraat na xam nga ni Balla Gaye du sama idole te damay rêvé bis ñëw ma jë ma bëree moom mais damay wax li yàlla dogal ci man damay nangul jaam. Mm-hmm. man jaam buy nangul jaam laa. xam nga bu ma ko waxee moo am. su ma ko waxul moo am moo ma gën a populaire communication donc laa ko dàq de waaye du leneen lu ma ko dàq. Hmm. yaa ngi dégg kon dama koy nangu li ko yàlla defal man benn idole laa amoon. ci muy mu ndaw Tyson te ñiit naa ko ba mu set man maay sama idole bopp dégg nga ma déggoo ma kenn laa doon ndamoo moom laa doon tiitaroo moom laa doon béggee waaye nag nenn ni boo ko defee nit ki te defu ko da ngay am fu lay toog jàpp sa njàmbur fu ñu la dëkkee mi koro nga ne benn idole laa am ñu daan la laaj temps booy bi ma gën a nekk boo di départ biñ may laaj sa làmb man leen euh, mën a bëre tafaage yi laa yittewoo doo lay bombardier fu la yëkkili fi li lii laa doon damoo temps booy boo weddee si arriéral samay kaset àdduna tafaage ci dàq bëre mën a bëreem laa doon roy yëkkini gisagoo kóob fu la ci làmb bombardier doole ma ngi doog a jeex waaye bi muy doon bombardier nit ëpp ko doole ci àdduna Tyson moo fi indi filim moo ñu woon sponsor kon moo yor filim bi ba pare ñu bokkoon Saalum bokk fu ñu dëkk. seen ngeen bokk Saalum ba léegi kay. waaw kay ma di ko ndamoo di ko tiitaroo Tyson musul jël téléphone am woo ma musuma jàppale ci suma làmb musul ñëw sax assisté ma. mais est-ce que yaa ngi koy yaa ngi koy woo Tyson. Ah, mais xam nga ne àddu gis nga àdduna. ki bëgg nga dugg ko di nga ko dugg ki bëgg nga dugg ki bëgg nga dugg ko dugg tey bi nga ñëw sama kër boo ma wooyee su ma ne la nekk ma fi est-ce que di nga fi ñëw soo ñëwoon ba fii ñu la bébé nekk fekk maa ne ku fi ñëw bu nekk new ma fi est-ce que di nga ma gis noonu la demee sa Tyson même bu ma ko doon loon sama idole bu déggee may doomu Saalum di doomu Kaolack war na mun a retenir ci man ni ma rakk tegeel fii sa tànk defal nii defal nii ndax mi ngi koy defal ñu mu bokkalul te tey bu faatu woon moo kër Maolana Cheikh Ibrahima lañ koy yóbbu suñ ñu génn woon Dakar ñooy bokk horaire buñ dugg su koy defal yeneen mbër yàlla naa ci man mi nga xam tiitaroo naa ko man mi nga xam ne daan bu ko Bombardier daan ma dugaloon ci làmb mais kon su ma jàppalewul boo ma laajtee ku sa idole làmb aw ma ci idole maay sama idole bopp maay sama champion bopp xanaa peu xanaa libre naa ci. am na droit am na droit ci li mu def. parce que da koy neex rek nag man tam am naa droit ci ni maay sama idole bopp te dinaa jaayante ak nag sama rakk yi nekk Kaolack champion yi fa nekk dund ak ñoom lu Tyson dundul ak man ci kattanu yàlla ak mbaaxam. mais bébé nag fi nga toll ci làmb carrière bi nga jot a def est-ce que war nga xaar pour nit jàppale la pour nga no ja xaaruñ ko moo tax ma doyloo yàlla sama borom lu ma yàlla jox mu jël su fekkee sama wërsëg nga ci làmb force dinaa ci lekk bu fekkee sama wërsëg nekkul ci làmb amul problème anyway dund ko jë li nekk sama jëb yi bu dee làmb ci làmb la ne dinaa ko ci jotee bu dul ci làmb ci leneen tamit dina ko dinaa si jot amul ma dem te ñëw loolu la yàlla dogal ci sama jëb yi munuma koo taxañ taxañ ba jot ci tey te te eggul ci li mu war waxtu moo ko jotee munuma cee gaaw a gaaw a gaaw mbër gis nga fi yeneen carrière yu gën a garaaw sama carrière te tey ñooy ooru làmb buñ doonul jamaa ba doon or bi tarew fi la la fekk man doxuma di làqatu fenn su may génn di dox ni ma doon doxee bu may am ndam noonu laay doxee ba ma ñàkkee que ki ma mayoon ba may doxee noonu moo xañ su ma soppeeku sama doxin yàlla bu mu fa jaaree sax continué continué ma xeetu doxin boobu man ko gëm yàlla laa ko doyloo su ma génne lu ma waaye wax ma ma àngu ko ndax maa bindoo ni tama. Mm-hmm. faaw ñu tëggee ma ñaari boor. Mm-hmm. kii saaga na saaga kii xas na xas kii comprendre na comprendre. yaa toll ma daanee daanaat dañuy fàttali ni musuma daan. daanu làmb ni mel. du biir day jekk rek aussi. Uh-huh. waaw fan la bébé jëm. ci làmb rek laa jëm. ñun ñooy adversaire am. mbër yi rek. actuellement mbër yi rek. doo fi lim kenn yoo xam nga la làmb moom. ko fi xam nga tey bébé du bëri ak Modou Lo. ah war a bëreel. a bëreel mooy ñi la làmb booleel ñan nga yaakaar ñoom laa war a bëreel yow. ñi nga xam ne làmb rek ngeen di dox. làmb rek ngeen di topp. waaw mun na ne mun na ne. am na ñun yàgg maam yàgg mun na ne soq ci boppam man dama dama ko ameel bor bu doon jàmbaar dëgg fu mu toog daf ma war a laaj dama daan mag daa indi magam ma jooyloo ko duma ko daan ko muy jat li kon bis ñu ma ko waxee bu ko jëlee dama naan day fayu sil magam ma jaxaw ñu jàkkaarloo su ko bëggul jël di ma teggi ngir ragal ma tamit garaawul. dana ragal nga foog nga jàpp. ah ñaari yoon nag dox nañ ko sama combat ñaari promoteur woo nañ ko ko sama combat toog na ci plateau bi kaay di ko laaj muy muy muy teggi mais man de wax dëgg yàlla mu ngi noonu booy bu ci pare pour bëri rek buñ ma leen joxee fay ma lu ma gënal ma bëree ak yow booy bu ci jàpp ni war nga mun a jàll ci VIP yi te boo jaaree ci bébé dem bu la leneen mën nga maa daan jël sama avance ñëw lan ngay dalal xelu say supporter xelu waa Saloum ci sortie bi nga xamante ne war nga ko defaat. waa Saloum dañ maa defal lu rëy rëy rëy ku ci mel ne Mbaye Ngom dafa jël bus climatisé jox ko waa ànd taxawu làmbu Kaolack pour ñu war ma ñëwal stade yamuñ ca ñu dem ci Ibrahima Kayta ñu ne ko Ibou Bambara mu yëkkati xaalis bëri jox leen ñu waaj yamuñ ca ñu dem ci Fallou kebe président ASC Saloum mu jël xaalis bari jox leen. champion yëpp dagg seen yitte ànd ak suma mag noo fatigable jiimaan suma papa am di faal yeneen paa yi xawoon na am jafe-jafe am lu ñu jàpp tax ñëwuñ champion yëpp ñëw waa kaw Kaolack ñëw taxawuma yàlla def li ko neex ñu ñibbi yoon yoon wu gudd nag ndax defet moo mel noonu. yoon wu gudd ma massawu leen ci loolu di leen wax seen doom du def lu dul jaajuwaat takkuwaat dem entraîné ji te xam ni. avenir am a ngi ci kanamam quoi xale bu ndaw laa. am ngeen ay relation no doomu Kaolack la mm, daf ma def lu ma lu ma metti. kon garaawut. que moo tax que bëgguma débat ci moom quoi. jërëjëf kontaan naa ci yow lan ngay tàggatoo. Mm, xanaa di leen santaat sama supporteur yi ku ci mel ni Ilimane ma fatigable Sora Ndamali xam nga fàll Bour Guewel ñaari yaar numéro 2 xam nga Mama Koro Mbodj xam nga Addiya Baye Ndaw suma mag Xaadim Gueye suma grand suma kilifa xam nga euh, Adja Soxnaam euh, euh, ngañ ma dégeen Modou Ndiaye Ibiza Modou Ndiaye baayu bébé Saloum xam nga di leen bëggee ñoom ñëpp di ay ñoom Amet borom ñaari bébé yi ñoom ñëpp maa leen di ñoom Jams ñoom sëñ Naar sama rakku jabar waaw sëñ Naar sama rakku jabar ñoom ñëpp maa leen di gërëm sama jabar nag sama yaay moom sama jabar la sama yaay la suma rakk sama caatu yaay ñëwoon na ci combat bi xadidaa jooy ba bëgg a dee moom rek la sama yaay am ci yéen moom laa tuddee suma taaw xam nga di ko sant bu baax sama mag baay Ndaw baay Mor suma xarit xam nga Sidika borom Ibiza maa ngi koy sant bu baax jàpp na ci combat bi xam nga Ali Tunkara ak Mbay Tunkara maa ngi leen di sant bu baax bëggoon nañoo jàpp ci combat bi waaye ñu mu demee la mais nag xam nga jën jeexul géej samay mbokku Saalum Saalum lañ samay mbokku waa Kaolack lañ samay mbokku waa koñ lañ Ali Tunkara ak Mbay Tunkara magam ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee xam nga di leen bëggee bu baax a baax di bëggee waa Kaolack nag ànd taxaw la am Kaolack yëpp bëggee naa leen sama mag Ablaye Dior sama taaw yaay maa ngi koy sant di gërëm sama mag Diaz maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax xam nga suma famille yëpp maa leen bëgg sama mag Awa Caam bu Caaroy waa Caaroy nag awma seen fay xam nga ñoom Ablaay bu xees ñoom Pape Yaaw ñoom Alla Jéeri ñoom Daam sama jarbaat ñoom Nday Mareem xam nga ñoom Nday Màgget ñoom Tuuti xam nga bu Caaroy daal dafa rëy ñoom Sayer Jeng ñoom Mbay Mbay Mbay bopp sama jarbaat xam nga boo yooyu jóg-jóg bu day waar xam nga ñoom Moussa xam nga ñoom gaa bu daal xam nga di leen bëggee bu baax a baax a baax di bëggee suma waa Ikiri bu baax a baax a baax suñu papa Jimboori ak waa écurie suñu kilifa guñ naan maar la nekk ba États-Unis xam nga léegi nekkoon suñu coach suñu coach Tigo maa ngi koy bëggee di bëggee waa écurie bi yëpp ku ma limee damay juum démb gis nga doomu jaamur yóbbu bu rafet bi mu yóbbu ak musique xam nga ak boo yëpp ñu dar ma dar bu rafet gis nga yàlla dogal lim dogal may masawu ñëpp di di di gërëm sumay soxna ku ci mel ni jàpp yaay buur ba mu toogee ba tey jógul di gërëm yaayu sëñ fàllu muy Soda Mame Marème sama naatu dalman ko bi ñoom ñëpp maa leen di gërëm di la gërëm yow ci teewaay bi xam na di jéggalu samay supporter nag di leen wax mbër mi bëggoon na jéemoon na yàlla mi sottal sottalul nañ jéemi waat te bëggaat amaana beneen prochaine combat yàlla sottal jërëjëf merci